sénégalaise ma maa teyu yàlla ku maa teyu yàlla ku yóbbu la jàmm maa teyu yàlla na la yéene jàmm moo très cher maa teyu la xam nga ne bii nga àndal xam nga kenn mënu ko génn loo yor yor ah Macky euh, ngi ah. dëgg la mais ça c'est journal bés bi. mais waaw loolu dafa yàgg. loolu dafa yàgg loolu démb la. Seri Diarra. mon très waaw euro waaw. c'est loolu dafa yàgg. mais nguuda. Ah say borom sikkim rek borom ba ñu moo ngi nii le centre du peuple xoolal vie bi rek waaw ça c'est le golden boy de la musique sénégalaise l'ambassadeur de la musique sénégalaise en de Radisson Blu avec DJ Boubs borom ITV e borom bés bi journal série Diarra waaw mon très cher Ardo ça c'est Ardo de la Lonase fait partie de mes partenaires Arbo oui madame Ndao madame Ndao mu ngi ci biir non ana madame Ndao waaw ana madame Ndao oui madame Ndao madame Ndao yaa Wally qui est là mon ami ça c'est madame Ndao de la LONASE madame Ndao de la LONASE Wally ça c'est madame Ndao de la LONASE ah, madame Ndao madame Ndao ma maman de valeur. Hmm. Ardo. juróom huile nga laal nii de <laughs> tey huile nga laal nii de mu demee nii <laughs> nga jaaj yi de <laughs> waaw waaw borom sikkim bi nii borom ba weex yaa ngi ne borom sikkin baa ngi nii borom ba ñu weex yaa ngi nii lii waaw waaw barke alxuraanu karim malien nee na malien nee nañ borom xaalis bu ko bu ko rek amul ay surga ndax surga yi waroon nañu fexe ba xaj bi du <laughs> waaw waaw nga ne waaw. Ah. Ah. yeewul ñu jox ko vingt millions. barkeel xuraanu karim wallaay. te ku ku bëgg a tëgg ci dëkk bi da ngay bàyyi ba ay tam xarit wala ay gàmm wala ay màgg nga xam ne waa du tëgg yooyu waa du jullit la du tëgg yooyu. boo tëggee fees mais tëgg tëgg yooyu waaye fàtte benn pëtr waay ànd ak wàllu ah, suq wàllu moo neex da ngay dem avion dem Dubaï dem Bambey dem Xelkom dem umra te ñaar li tax yow xeexe yow yomb mm. yow yaay sinabkat bu dem màkk dëgg la Burkina Faso la yem ay Zambie ay kii te yow yaay sinabkat ba tax jumaa fu mu am amul de ay ñaar ñi ne vaata seen fóotuwaay <laughs> X6 nouveau modèle abu ah, oto de xale titre foncé xale carte grise barki alxuraanu karim X6 nouveau modèle barki alxuraanu karim lii dampal mon très cher Supra xale Louis Vuitton non sama xarit nga da ngaa baax Malick Mbengue waaye mon ami Pawlish <laughs> oh, li dafa neex li yàlla mu gaaw a jeex li yàlla mu gaaw a jeex yàlla na leen yàlla defal jàmm ci barki Baye yaa rabbi ci barki Baye ak Bayam ci barke wuldu Cheikh min di Cheikh yi waa xasatu Ibrahimiya waaye golden waaye parce que sëñ Bamba kii moo gore de mën naa nag ay nitam ñi la ñuy jillante mel ni ay topp séet waaye golden waay parce que sëñ Bamba kii moo gore de mën ànd ak ay nitam ñi la ñuy ji ay topp